pap pap parrainage vie, corruption bu mak moi tu commencé parce que gis nga un délégué régional pap état à ci a yow délégué régional y la enseignant pap Pape gars yi seet la ne la trente millions ngi nii oto ngi nii pap poste ngi nii mais pap soo demul say njaboot bàyyi la maa ngi koy wax démb fexel ba état bu mu la soxla mais taxaw fii naan man mun naa résister pap pap ñaanal rek seytaane seexlu la pap seytaane bu bëggee dëgg-dëgg ak am ay pouvoir pap seytaane jël na ay yonant tiim loo leen àdduna luñ mësul gis moo yëkkati leen ba ci kaw ñu tiim àdduna mu ne boo nangoo nekk sama taalibe je te donne le pouvoir ndax yow xam nga prophète nga ci benn xeet kese je te donne l'humanité c'est que seytaane li muy daj si wàlliw du ko daj si man mi pour détourner la mais seytaane ak am doole moo tax xoolal xoolal xoolal seytaane taalibeem yi taalibeem yi rek xajul si nit xam nga taalibeem bu gën a mag lan la jigéen ñaata ñaata nit ñoo fi dévier ndax jigéen beneen bi xam nga ban la xaalis lan la xaalis mu mënul régler te ñoo ñëpp ay taalibe seytaane lañ c'est-à-dire seytaane moo leen féetee kaw li mu mun ñooñu mënuñu ko moo tax état su dee da nga bu garder sa dignité ñaanal ñaanal fexe rek mu lay fàtte mais eh, pap fi ngay gis ay revirement spectaculaire ay nit yoo xam lii lañ doon wax dem ñu yow sama teel ñëw di ràgg makki di ràgg Amadou Ba di leen tàggal seen maam nga foog loolu lan la loolu xaalis kese la dañ lay won pap loo musta gis dañuy fekk duudu këli baleeg motom bu màgget bii ñu ne ko duudu arrêtel moto yi ngay dawal nii waay kaañ jox la oto yow duudu nga ne non man bugguma oto gars yi ne la waa d' accord léegi am na ay moto yu cher yu BMW yuy jar 4 millions damal jël paap paap loolu yombul de yombul ne déet de paap nga toog ñu jox la 50 millions ah paap yo bank ba yang ko defal si 3 ans 5 millions ñu la yo sax am nga bor bank, nga ne waaw amel nalen len bank bi de amel nalen len 5 millions ñu ne dak jeexna pap ay na li nga lebon fay nañ ko tegal la ci 50 millions ak moto 4 millions pap Sénégalais yi nag boo ko defee ku nekk na toog sa coin di saaga de mais kenn kenn wala book raar na ñu mun résister loolu looloo tax délégué régionaux yi gaa yaa ngi leen di wékki te liñ si liñ si namm rek mooy wàññi candidature xam